irfa mudaarian ida yujarradu min naasibin wa jazimin ka tasadu mudaariu kenn mënu la ni nangama ko rafaa lu dul aamilu maanaa la de waaye du aamilu lafzi du dëgg li ko nasab nag da nga naan an ji moo ko nasab mbaa lan ji mbaa xattaa ji du dëgg lu ko jasam da nga naan in ji moo ko jasam mbaa lam ji mbaa nangam waaye lu ko rafaa lan la mënoo koo wane aamilul maanawi la ka rafii libti ka rafii mubtada li rafaa mubtada moo rafaa feelu mu daara lu lan moo rafaa mubtada ak tàmbalee gi ñu ko tàmbalee te loolu maanaa la du lafz bu ñu mën wane kon mu daari o boog kon nanga ko rafaa kañ lay koy rafaa ah ida yu jarradu min naasibin wa jaazim suñu ko rafleelee ci lu ko naka mbaalu ko jagam ah kon loolu kat moom dong lañ ko rafaa li ko rafaa maanaa la de waaye du benn la dégg nga ni ki tas adu ah boo koy nasab nag la koy nasab lafzi la wan sibhu nasab ko nag bi lan ci lan wa kay ak kay kadanaka noonu bi an ci an dégg nga laa baada ilmin waaye waxuma an ju dikk ci gannaaw alima de alima de su su baatu ilmu dawloo alima dégg nga kon dañ koy rafaade alimoo an sa yu ammaloona fa jaadu qabla an yusalu bi akrami suuli alimoo dégg nga ah an yu ammaloona seetuloo ni nga rafatee an yu ammaloona an ji lu tax waxuloo an yu ammalu nasabe ko dëgg noonu feeli juróom alima jee tax du dëgg alimoo an su dégg nga an yu ammaloon ma ngi mel ni su ma noonu alimtu an ya alimtu an yadhabu zaydun ndaxte kooku lu doon ci soon annahu yadhabu zaydun alimoo an say an yu ammaloona alimu annahu sayu amaloon an daal bu ko alima dawloo dootu nasab mudaari on loolu la moo tax mu ne laa baada ilmin ci lu dul gannaaw ilmu de baatu alimu wallati min baadi zan an ji dikk ci gannaaw zan na nag ah fansib biha wa raf a saxi nee na bu fekkee zan naa dawlu yaar mën na fa am nasabal du dëgg waaye wa saxix wéralitam wéralilit a raf a rafa kooku mën nga koo nasabe mën nga koo rafaa su fekkee zanna la bu dee baatu alima nag doo bu mu raf bu mu nasab mukk ana seetal tor yooyu foofu sawaay man gisatuma dara gisatuma dara man maa la ne alima alimoo an yu amaloona fa jaadu qabla an yusalu bi akrami su'li kooku shahid la ci an joo xam ni léegi jëriñatul ak nasab te li ko def alima ju mu jikku jiitu jamono alimu an yu amaluuna soo nasaboon da nga naan an yu amalu ah bu fekkoon ne zanna moo dawlu nag ah bi maanaa rujxaan njortu nee na rafaak nasab ga yëpp mën na am soo waaye waxtaqit na nga fas dégg nga ah bu fekkee da ngaa nasab kon an na moo nasab waaye su fekkee da ngaa rafaa nag waxtaqit taxfiifa an min an na kon waxtaqit na nga fas ni na nga fas taxqiq taxfiifa an woyofal gu ñu ayaf min ànn kon na nga jàpp ni ànn la woon lu dëgg ñu woyofal ko muy ànn misaalu loolu fa taqulu zanantu an yaquumu déedéet boo ne an yaquuma da ngay nasab wa raf a saxi wéralal rafaa boo babaa nag luy anam gi an yàqu muy kese mu ne na nga fas taxfiifa an min anna an ji da doon anna ji rafaa lisim nasab xabar du dëgg kon lisim jëlu doon cosaan mooy mooy annahu yaquumu zaydun nga nga taxfiif an ji mu jóge ci ann du dëgg kon nag nga ni an yaquumu zaydun ay annahu yaquumu zaydun seetal toor bi soo soo nasabee kay amul wax amul wax an rek la waaye mën ngaa rafaa mu daare waaye ci kaw nag na fekk booba an ji an na la woon ñoo wasa xasaf loolu rek la jublu taxfiifa sax waxtu taxfiifa an min anna fansib biha wa raf wa sax wéral lit rafaa ga amma boo rafaa nag waxtaxit fasal taxfiifa an woyefal gu ñu woyefal baatu an min anna mu jóge ci anna fa huwa loolu mutaridun lu qiyaasu faaw la wa baaduhum ahmala an xamlan ala ma uxtiha xaysu staxaqat amala wa baaduhum ñenn ci naxu yoon yi ahmala niinal nañu an faw dégg nga te fekk mu waroon a jëf xamlan ngir yan ko ala ma uxtiha dégg nga ma- ci maa mi nga xam ni moo doon mbokkam mawsul xarfi la anit mawsul xarfi la te te maa nag moom du du du nasab maa moom du nasab fin lu mu daare an mi ko doon nasab ñenn ñi léeg-léeg ñu ihmaal ko bañ koo nasabloo bañ koo jëfloo ngir yan ko ci maa mi nga xam ni uxtoom la mbokkam la ndax ñoo bokk di xarfi masdari yi du dëgg xay sustaxaqat amal foo xam ne yelloo woon na jëf bi an waqaat baada ma laa yadullu ala al yaqini wala zan ndaxte bu dee daw luy tegtale yaqin waxoon na ni mooy alima bu mu jëf su dee tegtale zanna yaari anam yi mën na ca def loolu passé na fa taqulu nga ni uridu uridu an taquumu seetal kon da nga yan an ci maa rek wa illa an dafa waroon a nasab mu daara kama taqulu hmm, ajibtu mimma tafalu mënoon nga ne lu tax listiraakihima fi annahuma yuqaddaraani bil masdar xarfaani masdaraani lañ loolu mooy maanaam ma ñëw bi idanil mustaqbala foofu la in suddirat walfilu baadu muusala aw qablahu lyaminu wansib warfaa ida idan min baadi atfin waqaa loolu la de dégg nga mu ni wa nasaboo nasab nañu bi idan ci baatu idan danañu ko nasabe al mustaqbala mudaari'u mu jëm ëllëg danañu ko nasab ak idan in suddirat ndegam idan ja dafa nekk ci sadru kalaam ndem dañu koo njël beenal mu jiitu dégg nga in suddirat fi sadril jumla wal fi'lu te fi'l ja dégg nga in suddirat buñ dawalee idan ja mu jiitu wal fi'lu te fi'l jaat moosalan di li ñu jokk baadu gannaaw ga bi maanaa ci moom ñu jokk ca fi'l bi ni ki idan yafalu idan yadribuka idan yadribaka ne adribu zaydan ñu ne idan yadribaka seetuloo idan jiitu te fi'l ja jokk ca wal fi'lu baadu moosalan an naxu ni ki ni ki aatika fa taqulu idan ukrimaka mu ni nag na ca jokk ah wala xablahul yamin wala yamin lu mel ni ngiñ dawlu ko ngiñ woyefal nañu ko daanaka ni ñu woyefale zaraf ak jaar ak majruur ñu mën a dugg fu ne xaw nañu ko woyefale yamin itam dégg nga mu nga mën ni zaydun wallahi rajulun saalih seetal diggante mubtada xabar nga doxale sa ngiñ bi zaydun wallahi rajulun saalih ah dégg nga aw qablahul yamin naxwu wallahi idan ukrimaka maanaa dafa wax ni na dawlu dégg nga wala qablahu lyamin in suddirat wal fi'lu muusalan wala aw qablahu lyamin ah gis nga nag kon ni mu ko misaale bokkut ak man bu ma doon misaal dama naan idan wallahi ukrimak du dëgg moom dafa dawal wallahi ci misaal bi ci tor bi gis nga ko gis nga ko aw qablahu wala jëkk lan waaw aw qablahu dami aw qablahu wala ji jiitu ko moom kan damiru foofu mu dellu delluwul ci idan de kon mu ne aw qablaha ma ngi dellu ci mudaari'u bi dégg nga dafa ni fi'l ja na jo na idan ja dawlu na ca mudaari'u ja jekku aw qablahu wala jiitu mudaari'u ma boog al yaminu moo tee mu jokk ca ni ki ni ki wa idan wallahi ukrimak di dëgg kii nag dafa bind wallahi idan ukrimak kon kon bon te bu ko ne in suddirat wala aw qablaha bo idan la naan in suddirat moom du muannas la ndem def nañu idan ndem nekk na ca bopp kalaam ba su bëggoon a wax lii mu wax danaan ah aw qablaha mbaa boo jiitu idan ja al yaminu ngiñ misaal ma di wallahi idan ukrimak loolu nag waxul loolu in suddirat ndem jiital wal feelu feel ja moosalan di lu ñu jokk bi haa ca idan ja bañ ko jiitalee feel ja jokku ca aw qablahu wala jiitu feel ja alyaminu ngiñ nga xam ne ngiñ dong nga fa dox kooku ni ñuy jéggalee ci jaar ak ma juróor ak taraf léeg-léeg dañuy jéggale ngiñ kon idan bu fekkee wallahi rek a dox diggam ak mu daari omi du tee mu mën ko nasab idan wallahi ukrima loolu la de waaye misaal mi mu misaal bokkut ak li li li nga xam ne mook moom la yàq bi di wax du dëgg su nar lii mu misaale su ko nar yàq bi bëggoon wax danaan in suddirat aw qablaha al yamin ba dégg nga li mu wax kon danaan in suddirat moom idan aw qablaha moom idan ma suddirat muannas la qablaha muannas amma aw qablahu kay mudaari omee ko moom niki tey munoon idan wallahi ukrimu wan sib na nga nasab war fa te nga rafaa lu la ci neex ida idan su fekkee ni idan dégg nga waqaa tabbi na min baadi atfin ci gannaaw ataf dégg nga min baadi atfin ci gannaaw ataf ah du ma gis nag man bu baax léegi bu xasee suufee du ma gis dara mu ne ida waqaa su tabbee min baadi atfin naxwu anta in tazur nii azurka wa idan uxsinu ilayka du dëgg wala uxsina ilayka xaysu atafta ala aljumlati alchartiyati in tazur nii azurka wa idan dégg nga bu la neexee nasab uxsina wala uxsina waaye bu dul bu dul loolu woon su waaw wi duggee ataf bi da koy yàq ni ki wa idan laa yalbasuuna xalfaka illa qalila du dëgg ah léegi aw qablahu lyaminu passé nan ko wallahi idan ukrimaka lool laala ni dafa waroon wax ni idan wallahi ukrimaka nga xam ni mudaare omi yamin doo nga ko dawlu kooku du tee mu mën a jëf mu loolu jeex na mu ni nag bu la neexee mu daari mi doon wax bu la neexee nasab ko bu la neexee rafaa ko mooy wan si war fa an ida idan su fekkee ni idan waqaa dafa dikk min baadi atfin ci gannaaw xarafu at ni ki wa idan du dëgg moom la ni ni ki nga ni intazur ni azurka soo ma ziyaare danaa la ziyaare wa idan uxsina ilayka mbaa wa idan uxsinu ilayka su ci waawi àndee moom bu la neexee dindi nasab gi wa idan wa idan laa yalbasuuna xalfak lu tax laa waxul li laayal basu waa weeta xaysu atafta alal jumlati chartiyati loo teg fa nasbu bi itibaari tasadduriha fi jumlatiha nasab bi wa idan aywa fi jumlatiha dafa jiite moom idan jë ci jumla dégg nga wa amma in atafta ala wa ida an atafta ala wa ida in atafta man duma gisati fi mu ne li may wax wa wa amma wa amma in atafta ala lan yow di li nga bind leeru yoroo beneen téer ma in atafta ala ma lahu mahallun du loolu la defe wa amma in atafta ala ma mahallun te mooy jawaab soo ko atafee ci jawaab ji moom am na mahal nee na fa innaha tulqa bu boobaa idan ja dañu koy wàcc way jamul fi'li du dëgg loolu moom la ni wan sib na nga nasab mu daare omi war fa te nga rafaa ko ida idan su fekkee idan ji doon nasab mu daare omi waqaa dafa ñëw min baadi atfin ci gannaaw xarafu ataf ni ki wa idan ji mu la misaal loolu wax na wa bayna laa wala mijarrinul tusim idhaaru an naasibatan mu ni wal tusima taqoo nañu idhaaru an feeñal an bayna laa ci diggante laa naafiya wala mijarrin ak laa mujarr dégg nga su fa an waree dugg te war a nasab nañu ko feeñal fokk moo tax nga naan li allaa yakoona laa mujarr mooy li ji an ji nasab moo nekk noonu maanaam laa moo ca topp kon an jooju fokk da nga koy feeñal du dëgg su dul woon laa ji ci topp nga mën koo indi mën koo bañ a indi wa umirtu li an akoona gisoo ko dégg jàngoot wa umirtu li akoona du yaar yëpp am li akoona an ja dañu ko xadaf ma nga fa su ko defee comme laamu kay laamu kay an la ñu xadaf ci gannaawam mën nga ni li akoona rek du dëgg waaye soo ne li an laa akoona fokk an ji doo toog doo mën a wax ni li laa akoona déedéet bu diggante laa mu jar ak laa naafiya bu fa an waree dugg il faut que dañ koy feeñal kenn du ko xadaf su ca te su dikkul woon bu dee laa mu jar ge dong bu la neexee tudd an ji man def def naa nangam li an yakkoon a ngir mu nekk wala nga bañ koo andi ni li li li yakkoon a ngir mu nekk bu la neexee ni li an yakkoon a bu la neexee ni li yakkoon a li an yadriba wala li yadriba wala su- soo bëggee nag li an li an laa yadriba ah fokk nga nga andi an jade dootoo ko xadaf mukk doo mën a wax ni li laa yadriba loolu mooy wal ah, wal tusima taqoo nañ idhaaru an feesa feeñal an naasiba tan muy aji nasab mu daari o ci ban diggante bayna laa naafiya ak laa mu jar du dëgg seetal li yàllaa yaalama ana lu mooy xam nga li yàllaa yaalama ci njàngin bi li an laa yaalama soo demoon ci xabs loolu la yo mooy li an laa yaalama loolu moo doon cosaan fokk an ji feeñ ndax laaji ci kanam su laaji dikkul woon mën nga ni li yaalama an xadab la ko rek du dëgg waaye bu- diggante laa mu jar ak laa la ni fokk an ji nasab daf dañ koy feeñal mu ni waaw wayin odim laa bu fekkee dañoo ñàkk am laa nag laa topp ca kon ah, loo lu ca topp ah. ah, ah, fa ah, fa ah, dégg nga wayin odim laa ah, amilan fa an fa amilan jëf loolu an mudharan muy lu feeñ nga ni li an yakkoona aw mudmaran wala muy lu ñu nëbb nga ni li yakkoona rek wa loolu laa waxoon tam ah. wa baada nafyin kaana xatman udmira ah. wa udmira dañuy nëbb an baada ah, nafyi kaana ci dàqu kaana maa kaana allahu li yadara du loolu ngay wax waaye li an yadara kenn kon du fa feeñal am baada kaana xam nga laamu juxut mooy lu nekk maa kaana eh, wala lam yakun waaw wa baada nafi kaana te mooy maa kaana mbaa lam yakun wa udmiran dañuy nëbb an xatman lu war fekk bàyyi fa nasabam baada nafi kaana ci gannaaw dàqu kaana dégg nga kazaaka naka noonu baada aw ci gannaaw aw aw itam dañu bu dee nasab dégg nga eh, an dañuy xadaf ci gannaaw aw xaw nga aw aw dañu koy boole ci xarafi nasab da ci boo demee ci nawaasibul mudaari ak ci ajarooma limaale na aw waaye nag an ja ko war a def da dul feeñ ci gannaaw aw mukk moo tax ñu faf tudd aw ji ida yasluxu bu fekkee dana wér fi mawdiha ci barabu aw ja xatta wala illa aw illa niki la aqtulanna alkaafira aw yuslima kenn du ni aw an yuslima de comme aw jeedi an ja dañu koy xadab faw du dëgg ndegam dafa yor aw ji dafa yor maanaam illa niki foofu la as la aqtulanna alkaafira damay rey yéefar aw yuslima maanaam illa an yuslima dégg nga naka noonu wala mu yor maanaam xatta niki la alzamannaka il faut que ma taqoo yow mii ma yoral bor aw taqdiya nii ba ba nga may fay xaqi an ja ko war a nasaf kenn du ni aw an taqdiya nii déedéet aw taqniya nii an ja dañu day nasab te ñu xadaf ko faw ndegam aw ji dafa yor maanaam bu mujj bii ma mujj a wax léegi maanaam xattaa la yor bu njëkk ba maanaam illaa la yor yooyu yaar aw bu yoree maanaam illaa wala mu yor maanaam xattaa day nasab mu daari o ak an joo xam ne du feeñ mukk mukk abad misaalam la aq danaa rey la aqtulan alkaafir aw yuslima misaalu xattaa la alzamanna fulaanan aw yaqdiyani ba ba mu may fay ay xattaa yaqdiyani ba ba mu may fay an yooyu kazaaka baada aw ida yasluxu su dee yëwan fi mawdiha ci barabam xataa xataa ni ki danaa taqoog diw xataa aw yaqdiya nii maanaam xataa yaqdiya nii aw illaa wala illaa moo mën a dugg fa place ba ni ki boo nee damay rey noon bi aw yuslima b maanaam illaa an yuslim xam nga ni kenn du defee ni xataa la foofu ndax kenn mënul ni la aqtulaan alkaafira xataa yuslim soo ko xasee rey kañ lay jébbalooti kon kay yooyu yaar mooy ñaari misaal dafa ni dang wax ji nag béy bi pour te nga firi ko firi mu jeex nga ni an an xafiya nëbbu na kazaaka nëbbu gu mel noonu maanaam xat man an an xafiya nëbbu na gannaaw bi muy nasab mu daare wa dana nëbbu danañu ko xadab xat man kazaaka comme nañu ko daan xadaba fële baada aw ci gannaaw aw ida yasluxu ndeem dana mën a baax fi mawdiha ca barabu aw ba bu fekkee mënoon na fa nekk xattaa bu fekkee boo dindi woon aw bi def fa xataa mu baax aw illaa wala boo dindi woon aw bi def ca illaa mu baax kon an ja day nëbbu dañu koy xadaf ni ki ñaari misaal yi ma la wax la aqtulanna alkaafira aw yuslima soo dindi woon aw ji def fi illaa nga ne la aqtulanna alkaafira illaa an yuslima la asta astashilanna saaba aw udrikal muna fama fama faman faman qaadatil amalu illa li sabiri la astashilanna danaa jéem a yomblu as saaba lu jafe du tee man danaa ko jàppe comme lu yomb ak def tout pour ma man koo àggale aw udrika ba ba may jot dégguloo xataa udrikal aw jooju xataa mën na ko remplacer man nga ni lu jafe danaa ko jéem a forcé def ko nag comme lu yomb ba ba may jot sama mébét maanaam xataa udrika fa man qaadat du wamatu al amalu mébét yi illaa li sabirin ndaree ñeel ku muñ rek wa kuntu ida gamastu qanaata qawmin ah waxa ah kasartu ku oo bahaa aw aw tas aw tastaqima wa kuntu nekkoon naa ida gamastu bu ma masee naj di bés qanaata qawmin guntuxu aw nit ma jaas la nag maanaa do seen doole rek tax su ma masee bés guntuxu nit kasartu ma damm ko oo bahaa koñam ya aw yastaqima ah aw tastaqima ah illa an tastaqima lu dul boog dafa jub foofu moom xataa mënu foo dem illaa moo fa mën a jub ndax soo ko xasee dem kañ lay jubati mooy comme yaari misaal yi ma la waxoon rek kasartu damay dem bu ma ko idaa xamastu bu ma dee fudd xanaa taxaw min guntu ko aw gaay kasartu ma damm ko aw baxaa koñam ya pas-pas ya aw tastaqima ndaree boo xam ne bu dafa jub illaa an tastaqima aw jooju maanaa illaa moo ko mën waaw waaye ba tax a gisatuma dara sax حتى هكذا إدمار أن حتم كجر حتى تسر ذا حزن نواسب الأفعال برنا ci yoo xale an mooy cosaan ci nasab ana ana ko nasab waaye nag su fa àndul feeñ mukk la mu doon àndal ñu daal di ko lim ci nawaasib looloo taxoon nu limoon ci aw bu yoree maanaam illaa wala ilaa wala xatta xatta ci boppam it naas naasib la waaye fekk na xatta ci dëgg-dëgg fil xaqiqa xarfu jar la du xarafu nasab waaye nag dafay waroon a dugg ci an su ko defee te andu feeñ ci gannaaw xataa mukk kenn du ne xataa an yadhaba du ñu ko wax mukk xataa yadhaba rek la ñuy wax su boobaa ñu ne xataa xarfu nasbin la looloo tax xataa di am yanti barab yanti mawqi yu muy dugg ci liraab takunu xataa xarfa jarrin yaa xataa aw xasfa nasbin li mudaari'in ataa aw xarfa atfin summa xarfi libtidaa arbaatan tajiduha muqayyada ak na mu ko yeggalee xataa dégg nga naka noonu an ju ñu xatta an ci gannaaw xadar aw illaa dafa ni an an xafiya nëbbu na dégg nga ah waaw kooku passé woon nañu ko ci ga baada aw ju an maanaa xatta wala illaa wa mu ni wa hakada naka noonu wa baada xatta gannaaw xattaat hakada naka noonu la ware idmaaru an nëbb an xat mun idmaaru an la nëbb an xadaf ko xat mun lu war la bàyyi fa jëfam baada xataa ci gaw gannaaw xataa wa illaa xataa ci cosaan moom xarfu jar la woon waaye comme an xarfu masdar la fa muy dugg da koy taawil masdar kon xataa dafa jar masdar moomee du dëgg man bu fekkee da nga ni maanaam intadartu xataa yaji a zeydun an jako nasab du feeñ de waaye ani masdariya la maanaam mi soo ko seetee te tadqiq ko da nga ni rek intadartu xata majii zeydin xam nga xata xarafu jar bi moo ci doon cosaan ni ki xata maslail fajir waaye du tee daan doon xarafu nasab mu daare oo ndaxte an jëm waroon a nasab dalul feeñ mukk kon ñu ne xata ko def dëgg misaalam jut tabeel xata tasurra ba nga bégaloo za xasanin boroo mu naqar xusnum ak xasan ñooy watil wa xataa xaala naw mu awwala bihi irfaanna wan si bil mustaqbala mu ni nag irfaanna rafaal mu daari o nag dégg nga til wa xataa judi aji topp ci xataa na nga ko rafaa xaalan mbir muy tegtale tàng bu teew du dëgg du dëgg ndax anitam bu dee nasab mudaari o dafa koy jëme ci listiqbaal aw mu awalan bihi wala muy lu ñu taawil xaal moom sax du feelu léegi waaye dañ ko ko taawil dégg nga ka qiraati naafi wa zulzilu xata yaqulu rasulu xata yaqulu lu tax waxul xata yaqula te moom feel bi du xaal nag waaye nag mu awalun bil xaal ndaxte dañuy xikaayatu xaalil maadiya dañ ko dañoo nettali xaal bu passé woon yonent yoo xam ne dañu leen daan géttan ñoo ñoom ñoo àndaloon di leen sonal ba ba mujj yonent bay wax mu di ko nettali mel na léegi la mel na ku ni gis nga ñu ngi sonal yonent ya ba ba yonent baa ngi wax nangam ni ma ko waxee melul na léegi la yonent baa ngi wax nangam moom nit ñi damaa nettali xaal ba waaye moo tax ah wan sim nasabal nag al mustaqbal la nga xam ne moom mustaqbal la lafzan maanaan kooku xataa du ko rafaa du ànd ak xataa ñu di ko rafaa waaye bu fekkee day xaal ni ki ya waxtu wi muy xew nga ko waxee ni ki nga ni surtout xataa adxulul qaryata fekk ida daxaltahu wa anta daaxil léegi damaa fekk ngay dugg dëkk man ne waaye yow da ngaa waroon nga ni déewal laay surtout xataa adxulul qaryata maanaam dama doon dox ba maa ngi nii di dugg ci dëkk bi kooku xaal la feelu léegi la kon du ko nasab nde an bu dee nasab feel xataa buñ koy buy nasab feel day fekk feel ja di mustaqbal kii nag xaal la su dee lu sudul xaal xanaa di lu ñuy taawil xaal lu passé woon la ñu di ko nettali xaal ba tey da koy rafaa ni ki wasu silo xataa yaqulu rasulu nde loolu xaal yu passé ci yoneen yu jëkkee la alquran di ko nettali pour di ko dëgërale yonent ak i saxaaba wasul silo xataa yaqulu rasulu ca booba yoneen wala du kooku du muhammad dafa ko nettali walladina amanu maahu ñu daan mata nasrullah mu ne ah ala inna nasrallahi qarib yéen itam noonu muñ leen ndimalal yàlla dégg ah mu ni nag warfa irfaan rafaal tilwa xata aji topp xata mu daare umu ca topp xaala kaw nihi xaalan fekk tàng bu teew la du mustaqbal aw mu awalan bihi wala dañ ko taawil xaal sax nde du xaal ah wan sib na nga nasabak xataa nag al mustaqbala mu daarew ma nga xam ne moom dafa jublu ëllëg tey kon nag dañ koy nasab faaw de wa baada fa jawaabi nafyin aw talab maxdayni an wa satruha xatmun nasab wa an an ba tey nasaba nasab na mu daarew wa satruha tembir mum nëbb ko kat maanaam xadaf ko kat xatmun lu war la jumlay xaal la de du dëgg an an mubtada la nasaba nasab na du dëgg wasatruha tem